Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. ñu leen di seer di leen bëggee mbokk téléspectateurs yi di leen wax ni ñu ngi am mbégte jàkkaarloowaat rek yéen ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Médina ñëw seet si benn champion bu mag fas yéene waxtaan ak moom ci yaatoo yaatu moom la ñuy wax Forza mbokk yi topp leen ma ñu fekk Forza ci milieu naturel am. ñu waxtaan ak moom xool ko Forza champion. champion maa ngi seer. waaw maa ngi lay delloo cheikh bi. mais dama la fekk sa ko. waaw waaw waaw fii moom sama secteur la fii mooy sama base quoi. rue 19 rue 19 waaw angle 4 bi. d'accord nga Medina. mu ngi nii di neex rek yaa ngi gis Medina moom c'est une ambiance. Uh-huh. mais gis naa ni ak ambiance bi nii gars yaa ngi waajal tabaski bi nan la ko Medina di waajalee. waaw Medina comme d'habitude ah Medina moom ñun moom. fii la gisoo gars yi moom ay businessman lañu ñoom dañuy toog teg seen i bagage waaw toog di xaar ñun fi la ñuy toog quoi jàpp suñu bopp waaw mu ngoog mais grand maa ngi siyaar waaw sant alhamdulilah tur bi nan la jibi jibi waaw naka Medina waaw Medina comme dab rek ñii lañ koy dundee quoi ñii lañ koy dundee saa su ne waaw suñu wàccee joo bi ñun ñëpp fii la ñuy ceene ak suñu mbër quoi oui noonu la demee quoi maintenant moom gis nga atmosphère bi moom waaw nii la demee ñii dañuy joo bi ñii teg daral yi xam nga toog suñu mbër waxtaan lii la ñu am quoi. gëj ngeen gëj ngeen gëj ngeen ñëw arène de lu xew. nañ fa nag mais est ce que mbër yi ragaluñ ñu tamit benn instant bi. est ce que mbër yi ragaluñ ñu. président ay ziar. delloo ziar ku baax. waaw sant yàlla alhamdulilah macha allah. champion waaw sa waay ah mais champion la rek. champion la un grand champion un très grand champion. man li muy def am ci fulla am ci fayda. waaw waroon dépassé fii mais ak dogal suñu borom kenn mën ci dara. Euh, ah maa ngi nuyu ñëpp téléspectateurs di nuyu ñëpp waaw di kontaan si euh, interview bi ngeen def ñëw defal ko suñu mbër. waaw ah xanaa ñu ñu ñu waajal rek comme que saison bi day waaj a ubbiwaat te xam nañ ne mbër moom instant yi moom mu ngi si mu ngi si mu ngi si entraînement yi te mi ngi waajal ay combat xanaa di ñaan promoteurs yi ñëw rek xam nga seet si ko jox ko combat. kenn ngeen bëgg. Ah, ñu jox baax na. waaw ku ñu ko jox baax na moom moom macha allah moom moom. xanaa kay da nga naan gaay kay ñooy xaw a daw rek di daw ay. champion Medina neex na de. Medina dafa neex fii mooy fii mooy Medina xaa li ñuy wax waaw Medina suñu Medina la Medina moom dafa neex moom. mais Forza lu lu lu lu waral gëj a gëj euh, gëj a bëri bëri. gëj a bëri ko waral moom euh, xanaa loolu li ñëpp ñoom Pape Birahim dañuy ñoom moom Baye Cheikh. Medina moom xam moom Medina lañ koy wax xaw ma damay njëkk rek di di saluer waa Bargny waa Gueule Tapée ndax aussi ñoom fa la ñu jógee ñoom Medina Medina tee ñu uuf ñu ma nii quoi jàpp ñu jàpp bu sell kañ waa Bargny ñëpp kontaan ci ay waa Yeen waa Tubaab Jalaaw waa Ngor waa Wakaam Yoff ñoom ñëpp quoi waa Jandeer may may nuyu lébu yëpp. dina wax ne aussi géej a bëri gi moom métti nañ trop méttiwuñu parce que lañu xam ne àdduna noonu la sàkku à son temps moment bi ñu ngi waaj di xaar duñu décourager te duñu perte les bras comme ni ñu koy waxee. waaw ñu ngi noonu di xaar mbër yi moom ñoo war a xam ne làmb làmb làmb business la mais business la loolu lañ ko tuddee mais nag dafa honneur bi moo ci ëpp parce que ku nekk da ngay da ngay protéger say dignité ak say valeur secteur yu bari topp sa gannaaw ay nit yaakaar ci yow kon loolu du affaire du caaxaan loolu du xaalis rek nit ñi ñoo ëpp xaalis. voilà mbokk yi euh, comme ni ngeen ko gisee euh, ñu ngi ki nga xamante ne moom mooy Forza ñu nekk fii Medina gis ngeen euh, gaayam ñuy wax. yàkkamti nañ koo gisaat mu ñëw bëree ah tooyal ah, li ñuy wax xaftaan bi amateur yi namm ko lool mais sa waay période bi nga xamante ne ñu ngi ci pandémie euh, làmb ji tëj nan nga doon def ak entraînement yi. waaw man moom dama doon gérer rek gérer bi mooy saa ma amee temps ma dem dawe ji parce que aussi boo fatigee sa yaram saison bi tëjjiwaat aussi nga bëgg liggéey liggéey boo xam ne dafa war a jëm déwén day métti ci yow mais moment bii li def mooy di gérer. fexe ba bañ a perte sama sama sama condition de physique waaw ci loolu laa nekkoon damay jël tamit poids benn bi. Mhm. donc euh, su ma la déggee loolu loolu professionnel moom moo koy moom moo koy xam donc euh, su ma la déggee bu baax entraînement bi nekk ko ci à fond. non non nekkuma ci à 100 pour cent fi mu toll nii moom xam naa nag après tabaski moom dinañ ci nekk comme la foofu ndax xam naa ne après tabaski d'ici 3 mois combat yi na démarré incha allah. fu mu toll nii làmb ji pratiquement combat yu bëri taxaw na. sa combat moom moo fi des mën nañoo wax euh, ba tey gisuñu adversaire non adversaire añ fi ne ah. adversaire yi mooy ruux rek mais adversaire añ fi ne boo ruuxul tamit aussi calcul bi bari na quoi parce que man tey bu fekkee encadrement am ñoo nakaan bul jëlagul moom war na xam ne moom moom moo war a woon encadrement am na moom il est prêt que dafa bëgg a doon mbër bi mu war a doon mu jël combat bi yow kan ngay mais man matul ma koy wiiri wiiri man rek rek laay wax man du ma daw sama wax ah. lu muy xaar lu muy wéeri wéeri encadrement bi dañ man sama encadrement ba ñu ma wax ne ma bu ko jël man bu ma demee fenn ma ma parce que mbër dëgg fa lay ñu ne la non nga ne wii. mais mais mais est-ce que Reug Reug moom jàppul ni dalaa dalaa dalaa xeeb ci làmb dalaa raw. xeeb non xeeb mënul nekk xeeb mooy lan yow ma njëkka la bëre waaw palmarès dàqoo ma palmarès bu dee ne bu dee simple bi ñu lay coowee li ma si def si lutte simple bi tamit aussi. bari na macha allah li ma jël si tourne dem na équipe nationale dem naa équipe nationale andi naa ay médaille andi na médaille dem na drapeau chef de jël na man jël na final naa deux deux deux man presque euh, seul mbër man ak euh, Auguste Mayek seen ñoo ma ci def loolu dem final benn final par jour parce que boobu maa ngi représenté Dakar man dama yàgg Dakar yàgg yàgg xeexal Dakar Ndiaye nag ba tey ma si laa nekk parce que ñun ñoo mbëri Dakar waaw dafa war a jël combat bi du lenn lu mu mën a maytoo ay wiiri wiiri naan ay guy geeg seeka c'est-à-dire ak yooyu amu fi bàyyi seex làmb day toll foo xam ne uy ma bu fekkee danga am loo war a doon jëlal ñi nga war a bëreel nga bëreeg ñoom amul wiiri wiiri làmb laajul loolu. mais est-ce que est que est-ce que aussi ci li mu jógee ci ki nga xamante ne moom mooy Gris daan Gris 2 gars yi coow ko digganteem ak Sa euh, bàyyi ko fi dem jëli ji euh, Garga ñu ne déet waay fu mu toll nii digganteem ak euh, nu mu tuddati guy gi la ñuy wax. bi dee rek. man bi ma paree si Abdou Diouf dañ ne kon de yow ak euh, kii nu mu sax combat mag kii waaye euh, la dëggee déedéet loolu combat bu ñor la mais man nit ñi suñ ko waxee man xam naa ne ñor na si bëti nit ñi te wala mën nekk la mais am na fu war a jaar avant ma fay yegg raison nit day am nit da dem si raison loo xam ne dafa am raison tey gi tey guy gi mën naa nekk parce que ñëpp ay naataango lañu mais nag am na combat yoo war a bëre parce que guy gi il a fait il a def ay preuve am ba taxaw fi mu taxaw waaw kon moom na jël na jël forsa ñun bëri ñun ñaar. ah pour yow gi muy yóotu gars yi noonu ñorul. ma bàyyi sa ma xam nga lu fi andi gars yi naan dañ ko ragal ku fi defoon lu mënul nekk man su ma toppoon naan Balla Gaye Balla Gaye suba ngoon ah, kon bu yàggee ñu ne waay man de mbëri dañ may daw parce kenn kenn nangul bëri man ma sigali Balla Gaye kese kon dañ naan gars yi dañ naan dañ may maytu fekk du loolu man maa dem fu lu mënagul nekk loo xam ne des na benn wala ñaar pour dire pour tey lamb bu ko boolee ak ki nga xamante ne moom mooy euh, lamb boole ko ak Sa làmb boole ko. leen lamb ko lamb boole giri kii nu mu tudd sax euh, euh, guy gi. du lamb coow leen boole. waaw yow lamb coow leen boole. du leen boole. coow lamba leen boole rek. mais ba ñu ma ko bu fekkee tamit aussi loolu la yàlla dogal dañ koy nangu mais lamb ji dafa am fu mu war a jaar tey jii nag kenn bañul ñu jékki rek ñëpp coowoon ndoola mbooy bi nangam ak nangam man du ma critiquer carrière am mais nag dafa releer a leer. mais yow li nga ciblé ki nga xamante ne moom mooy euh, rëg-rëg mais est-ce que sa encadrement est-ce que yow sa bopp yaa ngi xalaat ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg li mu def ci lutte simple rëg-rëg ni mu dangereux ñu mu fi luur yi mu fi arraché la bàyyi ngay yeggal lan lay xalaat ci rëg-rëg rëg ñaari loxo la am ñaari tànk am benn kanam kam ñëpp am ñaari bët am benn bekken am gémmiñ am ñaari nopp lu may xalaat ci moom mais mais gi mu dangereux. dangereux fii tout le monde est dangereux nit dafa lëndëm nit dafa lëndëm. ci bëre laay wax de. moom laa la wax bëreeg la ci yem. yaa Cheikh yàgg nañu kaa dégg fii tey sa gémmiñ la moo xew yàgg nañ koy dégg. Balla Gaye ak Yékini bi ñuy bëre. tout le monde Sénégal gépp dañu ñëwoon Yékini day daan. mais yàlla dafa dogal Balla Gaye moo ko war a daan mais félicité Balla Gaye di encouragé Yékini suñu grand bu baax la. Mhm. ndax carrière rafet na trop macha allah. laa wax dugg na seen écurie. li mu def Gris 2 bu duggaatee si lay xam ne lépp dëgg la dama ne dugg na génn na duggaat dama ko wax wax bu leer dama ne ko dama tukki woon nga rees sama gannaaw mais Baye Cheikh na ñëwaat maa ngi fi ne demuma fen maa ngi Sénégal maa ngi fii toog génn ma demuma fen maa ngi Ndakaaru Njaay lu tax gaa yi foog ne moom moo la dàq bëre defal ndànk France bu muy bu muy fubal ak Sénégal ñëpp dañu jàpp ne France dàq bëre jo dàq fubal Sénégal mais bi ñu bi match bi demee Pape Bouba Diop bu El Hadj jël bal bi wëndeelu bu ko joxee Pape Bouba Diop gis nañ ni mu nii tey man sax sama xalaat laay wax. mais au gis nga euh, giri euh, rëg-rëg li muy mbapat gis nga li muy def. waaye rëg-rëg li muy mbapat xam la jàpp tànk weñ palaake botti noonu loolu moo fi yàgg am gis nañ fi Tafa Gueye numéro 2. lu bees eh, waaye lu bees mooy lan da nga mës a gis mu def lu kenn deful mosu fi daan jël bu kenn mosul daan seexul tëjaan xam na loolu galgal yëkkati dugal tànk wan loolu kay yàgg na xale yi ndaw dañ koy bëri mu bàyyi woon kii ak kii léegi nga xam ne lépp dëgg la mais Baye Cheikh. mais puissance bi mu ciy ñun ay gune yu lebu la ñu ñun dañoo yàgg si booru géej. moom it la waaw dañoo yàgg si booru géej kon nag lebu mu ñoo jaaxal ñun suñu deret la. combat bii li ko yëkkal euh, du moom rek de xam naa ne mbokk mi nee nañ ko sawaay bul laal nee nañ ko xam bañ ko bàyyi mu jël. dañ ko wóolu n'est-ce pas. ay mbokkam ñoo koy non dama xalaat loolu. non xanaa du moom rek ndax mbër du ragal mbër du bañ jël waaw. Eh, eh, El Hadj El Hadj yaakaar naa démb. ñu ngi woon ak ki nga xamante ne moom mooy Abo Fall Abo Fall ne nekk doomu ndey ci rëg dégg nga li nga xamante ne moom la Forza wax <laughs> Abo Fall ah nogay loo leen di xaar ci combat bi jël leen ko ah ma leen di siyaar yéen tamit yéen. damay waxtaan ak eh, kenn ci ñi nga xamante ne dafay ànd ak ñoom muy Abo Fall mu ne ma boo waxee combat boobu noonu yow xam nga ni. danga nga bëgg xaalis ci kombaa bi mais yow xam nga ne xel ni combat boobu jamono ji yow boo ko jëlee xaalis nga ci am. Abo Fall dafa dafa xaw a niroog aboo Abo kon amul lu ma koy wax bàyyi ma bàyyi ko noonu nañ bàyyi bu mu leer xam nga buñ na Abo ñu ne sëñ Abo kon Abo gi dafa am lu mu leen boole kon rus naa see teg dara bàyyi ma bàyyi noonu rek duma ko tontu. mais yow lan moo tax nga sible bo euh, Reug Reug. Reug Reug ciblé ma ko Reug Reug moo toog ci télé bi ne nañ ko jox Forza. yàlla boole ko Gris ñu bëree pare mu bëree daan ma bëree daan Gris 2 bëri ak Abdou Diouf kañ leer na da doon laaj far daje kon lu muy dawate. ah yow da nga gis nii moom dafa daan Gris 2. moo toog si tele bi moo nañ ma jox forsa Forza mosu ko bañal yàlla dogal combat ma Gris 2 mu jee taxaw mu daan Gris 2 ma daan Abdou Diouf mais ani dem. te Abdou juuf ak. Gris mu def ci làmba ji kan moo ko def si ñun ñuy si ñun toll si moment bi ñu toll nii kenn moo fi def lu Abdou def. te Abdou Diouf Gris 2 taxaw. Abdou Diouf gi 2 taxaw kon mag moom ñaar ñi daanu taxaw. waa léegi ñaar ñi daan lu ñu war a def. man raison laa koy laaj de ñu bari nee nañu non non bàyyi ka sa mbokkal la ci lan lébu deret ñun ay lébu la ñun ñëpp dañ bu lébu gi lébu gi lépp li ñu boole mooy saa lébu yi dañuy wàcc gaal yi fii nii ngor wakaam yooyu fa bar ñi caaro yi ñu rawante gaal hmm. ki la meer gañ ay sportif lañu lu koy teree neex dama ko wax waaw bàyyi yaakaar naa ki nga xamante ne euh, El Hadj mooy euh, Reug Reug dégg na li nga xamante ne moom la Forza wax mais Forza ci wàllum xeex booy bi il est très rapide nag ci wàllum xeex xeexkat nga mais. yoo xam nga loolu waaye ban xeex lay xeex. gisoo ko ci MMA bi li muy def ma mooy lan MMA mooy lan bàyyi sa. gis li muy xeex waaye xeex yi mu dóor gan. waaye gan gan gan kooku bu ma day xam nga ne man hypercule. naa jàkkaarloo moom dóor kon day dee mbéj laa kay dóor waaye yow nga ne man ay. ki mu dóor noonu kooku taxaw. jàkkaarloo moom mbéj laa koy dóor waaw ci gaawaay mais non ba rek moom di ko dóor kooku doole yemul. adet wàllu wàllum doole mun daal bu ñu doon mën a xam ne mën na xeex mu gëm ne rek rek dëggal na boppam dëgg. rek rek boo dëggalee sa bopp jëlal forza ngeen fo. foo bu foo bu sérieux la nag làmb foo la boo xam ne ku daanu rus mais jëlal waaw incha allah. Eh, te te mbokk téléspectateurs yi dégg ki nga xamante ne moom mooy Forza mu wax ci loolu mais yaa ngi wax sànq écrit bi mu meloon ni mu waroon a mel lu tax. non loolu waxit la écrit bu meloon ni mu war mel kon man du laaj rek am na combat yoo xam ne écrit moo koy taxawal pour mu leer ma demee ba imposer sama bopp ça veut xam naa ne maa fi newal sama bopp. lu tax loolu. waaw adduna mooy doxee noonu góorgóorlu moo lay tax moo lay boole su ma defee li mu war am amaana suba dina am ñu ma solal mbuum avocat loolu dara ci si ci àdduna lañ koy fekk fi lañ koy bàyyi. da nekk ci ay nombre de victoire yu am am solo lu tax amoo avocat. loolu yàlla moo koy dogal. xanaa déggoo li olof yi wax nee na nit mën nañ ko tëj mais kenn mënu kaa àtte kon man du ma àtte kenn damay demee li ma war rek ak sama xel parce que xaw ma ndax maa nekk si dëgg wala ñoom ñoo nekk si dëgg yàlla rek a xam waaw. d'accord mais di nga déggante ñoom. ah bien sûr amuñu benn problème amuñu benn problème amuñu benn problème mais day tool foo xam ne après nit ki bu laaj da ngay wax sa xalaat rek jaaxul dara. d'accord yaakaar naa euh, euh, El Hadj nekk na émission bu ama am solo euh, ki nga xamante ne moom mooy Forza donc li mu wax dégg nañ ko mbokk téléspectateurs yi yéen ñu ngi xaar seen réaction aussi yen ñi nga xamante ne yéen amateurs yi li mu wax ci combat ak rëg-rëg ak li ma ko laaj ci Goro Sock aussi dégg ngeen lamb ji pratiquement combat yu bëri taxaw na Forza nan nga gisee lamb ji ni mu ñëwee. Elton Elton Elton moo fi moo bi Tyson 2 ñëwee fii gars naan Tyson kii Elton moo ko freiné. waa man waaw loolu du dara eh, Elton nii rek rek def nii moom defoon na ko de bañ ci tolloo ñoom ñaar dafa waxoon bu ma laajee tey eh, dama laajee tey kon moom xanaa tey la mën a laaj ba ñu defee suñu plateau combat boobu bi may yeewoo dama foogoon day taxaw toog naa trois peut deux mois et quelques entraîné moo sax à de ça veut émission bi ma am ci moom parce que dama foogoon day taxaw taxawul waaw. est-ce que warut a tax warut a man du ma yàq benn combat man avance bu ñëw dam koy lekk. góor a soog mi dadul mbër moom war a jël moo tax su ma ko jëloon tey gii ñi ñëpp duñu dem stade te man du ma lekk ànq góor a soog ma ko jëloon damay xam ne mbër yi dañ may samay samay supporter ñoo may woon ginnaaw ma lekk ànq ko def waaw xiifaa man noonu nag bay lekk ànqu jàmbur quoi man bëgg naa promoteur ma tëgg bu subaa duñu bëgg naa ku ma tëgg nga am certification ma am certification gis nañu de nos jours euh, Médina macha allah bëri na ay champion mais yow gis nañu yaa ngi mobiliser quand même booy ñëw ci stade di euh, lan mooy secret bi c'est que dara Medina fii loolu la rek Medina fii jàppal ma jàpp la fii ñun ñëpp jàppoo ñun ñëpp benn la ñu te aussi ñun dañu dëkk Medina waaw mais ñu lañu juddoo man su may bëri Bargny ñëpp ay jokk waa yéen waa Tubaab Jalaaw waa Ngor waa Wakaam waa Cëddeem ak Cëddeem ak Toor ak waa Jandeer combat bu jot dañuy ñëw ñangal et cetera waa yéen ñooñu fa laa jàngee fa laa nekkoon di dem géej Tubaab Jalaaw man li nekk sama gannaaw dama ko xam man ragal fu ma jëm waaw lan mooy sa euh, lan mooy euh, secret bi ak sa gars yi gis nañu ni euh, gars yi macha allah ñu ngi def opération. opération nee nañu yaa leen jàppale ñu def opération bi nga dugal sa loxo sa poche nga génnee jox leen ñu def opération bi idée boobu. gars yi dañoo baax rek gars yi dañoo baax rek gars yi moom ñoom ñoo ñoom lépp ñoom la ñoom ñoom lépp ñoom yal na leen yàlla defal ndam quoi parce que àdduna taxaw doomu aadama rek dafa dafa dafa dafa yombul. ñoom dañuy bàyyi seen bopp nekk ci man chaque instant. en plus dañuy dégg ñenn ñi boo waxee ñu ne mbër en général moom dañ moom rek la ñuy jàppale quoi moom rek kay wax nañ ma jàppale en général pour mu pour moom it mu jàppale en retour gaa yi du yomb yow nga def loolu ci période tabaski bi nga génnee sa xaalis jox leen pour ñu def opération aussi yaakaar naa lu ñu war a saluer la. waa àdduna jàppal ma jàppale rek àdduna moom jàppal ma la waaw ñun ñëpp bu ñu jàppee Sénégal day jëm kanam dama doon wax benn xarit ma xarit benn benn xarit benn zone mu nekk. adduna bi live bi mu toll du politicien rek ñoo koy doxal ku ci nekk da nga war a politique si li nga mel waaw kon yal nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp rek ñu ànd ak avancement quoi. sunu émission pratiquement jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo gërëm gaa yi seetaan aussi voilà. li may tàggatoo mooy que xaw naa juum si bi ma waxee ak si Goro Sock rek su ma si juumee tamit dama Sénégal yëpp comprendre ne dafa doon mbër boo xam ne war naa mën a bëre ak moom te làmb duñu boole àdduna boolewuñu su ma namee bëre ak moom xam naa damay année blanchette ñaanu ma ko yàlla. Euh, may nuyu ñëpp nag di baalu ñëpp àq te di baal ñëpp àq di ñaan ñëpp boole ñu jéggal ñun ñëpp profité occasion tamit si tabaski bi ñu jëm yàlla waaw te yàlla defal ñu jàmm Reug Reug ma wax ne aussi du la du dama ind du dama dara mais sama combat dafa a taxaw fii ba suba dafa war a taxaw xaritoowu ko defuma ko dara sama combat yow da koy jël maa ngi nuyu nag sama encadrement yëpp li ko dëggee Pape Mayor Diop grand Moussa Gueye muy sama grand bu baax bi waaw di nuyu ñëpp waaw di bëggee ñëpp waaw. rëg ni ko gars yi ragalee da dem ci gars yi sax ni ñuy sooree rëg yow nga nekk fii naan ma rëg nañ ko indi ma ma rëji rëjee ko man jaaxal na ma non sincèrement loolu daf ma jaaxal nag. yi pour nga ragal ñu yàlla ñuy ragal nit mu ne làmb bi ko ci nekk xam na kii mooy kaa waaw. Ah. gars yi nag xàmmee nañ kër gu bëri xaj ak kër gu bëriwul xaj. rëg-rëg mooy combat bi bu dul rëg ñaa mu ngi fii. mais pourquoi pas loolu. waaw bu dul moom Yékini Junior mu ngi fii bu dul moom xanaa Elton sax mën nañu foog moom bu moom xanaa ay waaw yi fi nekk du jeex. malik Niang nag Malick Niang nag sëñ bi booy jàng mën a xeex ba egsi si Malick Niang xanaa xanaa war a taxaw nag borom kaaw yi. fii làmba ji kenn daaku fi xeex kenn. ah déet Malick Niang mën na xeex bu mënee xeex moom xeex na jël jël Forza yi ñu xool ndax ku dàq xeex. déet super étoile bi fi nekkee di door gaa yi ñuy wàcc da nga jàkkaarloo moom ko rànk ko. mais super étoile gay na la du gars yi ngay lim ñii yëpp ñi ngay wax ñii yëpp ak super étoile c'est ça diamétralement opposé. super étoile du moromu day moromu seen morom. super étoile du guerrier am droit yàgg a jëlante ay coup mu taxaw durante ak man ñun ñaar kenn bougé wul tànk kooku di kooku di mbër kooku day ay rek da nga affaire yooyu. mais du ko jël sax nu mu koy jëlee Baye Cheikh. maa ngi gannaaw yow xalaat nga lool. xaar naa du ko jël. mooy dama xam loolu rek ndax ay mbokkam duñ ko ko jëlloo. duñ ko ko jëlloo. duñ ko ko jëlloo. te bu sottee nga xam lépp dëgg la du pour rek rek liggéeyul pour rek mooy lan bëre. kam ma ko jiir si si bëre bi. kam ma ko njëkk nekk champion. champion ba lañ koy coow kii lu mu def si mbapat xam nga ko. ak mën xeex mën bëri. mën xeex. kan la dóor. élément bi ñuy wax. ki ni jox rek rek ñu koy coow. suñu ko ko joxoon. lu mu la noonu benn pes la koy dóor mu wàcc. na jël combat bi nañu jëlal combat bi boo bëggee ñu raam sax ñu raam nga jël ñëw. ñun daal amuñu si lii. sa waay ñun promoteur bi ba pare rek fay nañu. yow daal si yow la dese bàyyi sax dim sa bopp ngir yàlla bu dee ne wóolu nga li ngay def wóolu nga li def bu baax a baax a baax a baax jëlal combat bi boo ko jëlee ñu xam ne lépp dëgg la nit nag da ngay ñeme li ngay def man nag dama ne am lu ma bëgg a doon ci làmb aw ma lu may sóor lu am ma lu am rek dinaa ko engagé mais nekkuma pour yow rek nag mais dama bëgg mu leer Sénégal xam ne mbëri ragaluñu la dégg nga bu fekkee dafa am ko la ragal nag non non non jamais tout sauf ça man sama gannaaw la ñuy topp mais duñ ma jiitu mukk Mhm. alors mbokk téléspectateurs yi gis ngeen émission bi nga xamante ne def nañ ko fii ci Médina hmm, ma ànd ceeg El Hadj Diouf euh, le meilleur des cadreurs le meilleur des monteurs le en tout merci beaucoup en tout cas merci beaucoup à Forza merci beaucoup gars yi nga xamante ne ñoom lañu fi fekk gaayam yi aussi mu nekk loo xamante ne def na ko muy fierté ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi yëngu ci làmb ba ci ñëpp su ma waxee ñëpp communicateurs yi journalistes yi en tout cas képp ku yëngu ci wàllum làmb rafetlu nañu li nga xamante ne moom la Forza def nekk ak ay moromu jeune am ci gox tabaski ñëw opération mu yëgati kopparam jox leen ko ne leen investir leen ci wàllum xar ngeen ngeen ngeen liggéey donc am na solo donc mbër yi comme ni ko waxee ñu ngi jàppalante mais ñu ngi jàppale aussi askan bi nga xamante ne saa yu ñu amee bës dañ leen di jàppale ñu ko ci euh, félicité di ko wax ni na gën a yokku mais aussi mbokk yi daa ñu ñëwaat incha allah ci beneen numéro indi leen euh, li nga xamante ne moom mooy euh, émission yu spéciale ci wàllum tabaski bi bu soobee yàlla yooyu yëpp ay secret la yoo xamante ne incha allah daañu ci dellu si Cheikh Omar la woon ànd ak El Hadj Diouf.